sëñ bi Lamine Ba ñu ngi lay nuyu. ñu lay fay bu baax. yow yaa jiite fédération nationale bi ëmb cadre libéraux yi tey ji fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars ñuy fàttaliku. alternance bu njëkk bi nga xamante ne Sénégal dund na ko ci wàllub démocratie bis bu tey ji lan lan lay fàttaliku ak ban xayma nga ciy def. avant tout nga may moom remercier leen di nuyu seen i auditeurs di nuyu sénégalais yi ñu déglu euh, di wax rek ci di tontu ci sa question alternance 2000 c'est vrai bés bu la di ko bokk di fête ak tous les sénégalais bés la nag bés bu nga xam ne nii dafa consacré Euh, arrivé pouvoir u un grand démocrate bu tudd Abdoulaye Wade parce que dafa xeex ñaar fukki at juróom benn pour gagner Abdou juuf ci anam yu ñëpp d'accord élection yu jaar yoon ci démocratie bu nga xam ne ni ñëpp nangu nañu régal yi ko tënk donc mu nekkoon bés bu nga xam ne ni sénégalais yi nga xam ne ni yëpp jógoon nañu bokk ci loolu amoon nañu yaakaar ne bés boobu bés la bu bees boo xam ne ni dina yóbbul démocratie Sénégal ci yeneen jëmm ci yeneen anam ba nga xam ne ni tey li nga xam ne jotoon nañu ko dono mu nekk ndono goo xam ne ni dinañu amal njëriñ mais ibbi Sénégal ci beneen dimension donc loolu lañ ci jàpp waaye nag tey comme ni mu ko waxee ñaar fukki at ak juróom ak benn topp ci tey ñu toll réew mi toll fii dañuy am duñu mën a wax comparaison mais dañuy am rek constaté ne tey la taxoon ñu xeex ba amoon alternance démocratique la taxoon ñu xeex ba jëlee fi woon Abdou Diouf tey defe naa ne jafe-jafe yooyu problème yooyu moo tegewaat tey sax wala lu ko gën a tar Sénégalais yi di ko dundu mu mel nii donc alternance mille bi mu mel ni li ko topp li ci topp ci alternance deux mille bi muy assises nationale yi muy la réforme des institutionnels des institutions yi fi sal Sall yi wax muy euh, dialogue national bi mu tudd donc yooyu yëpp daal dafa nekk lu nga xam ne nii tey dafa mel nii amul benn sens. amul benn lu mu yokk ci suñu démocratie lu muy gën ko naxasal gën ko delloo ginnaaw. Mm. donc daal du ma comparer mais tey constat bi mooy démocratie Sénégal sooxe na euh, ndax ñëpp koy ñëpp kenn rafetluwul lu muy doxee muy justice bi muy le jeu politique euh, li nga xam ne moo ko tënk élection yi. te kenn xamul ban ban ban ban date lañ ko war a organiser te même buñ ko waree organiser li nga xam ne nii mooy tax élection yi mën a jaar yoon muy fichier électoral bi muy mbirum carte d'identité yi yeeg muy mbirum mbindu bindumeeg yooyu yëpp daal nekk na tey objet de contestation ci réew mi ba tey ñu war a mën a poser wu ay question ne lii yëpp ñu defoon pour démocratie Sénégal tey tey mu ngi nii fii la ñu tolloo fii la ñu indi mu mel ni daal ñu ngi doog yeewu ci démocratie. Abdoulaye Wade ak ñi mu àndaloon defoon lu rëy ndax jëlee nañ fi régime socialiste bi nga xamante ne dund na ci bopp nguur gi lu tollu ci ñeent fukki at waaye moom laata mu ci jot tamit def na lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn ci opposition bi ak li mu dund yëpp ndaxam tey mun nga jàpp ni moom Abdoulaye Wade mooy euh, ki ñemee dund ak ki ñemee taaxirlu euh, ba jot euh, ci condition yu jaar yoon nguur gi. waaw du ma wax loolu rek damay bàyyi ku nekk mu mu apprécier ko boppam mais man li ma la mën a wax rek tey Abdoulaye Wade li mu wane ci xeex pour jot réew mi pour démocratie Sénégal defe naa ne loolu lu ñu bind ci analu histoire politique wu ak Afrique la euh, Abdoulaye Wade wane na tey loo nga xam ne nii tey ci démocratie réew mi ci niñ koy wutee ci niñ koy téyee ci niñ koy delloo delloowee lu mu ci jëf lu mu ci bind lépp nag dëppoo day ci suguma ku ko yem ci catu tànk c'est un vrai démocrate, c'est un visionnaire multidimensionnel, c'est un, un patriote exceptionnel. donc loolu Sénégal yëpp tey mun nañ ci tënk mun nañ ci d' accord donc Abdoulaye Wade def na li mu war a fam ci démocratie Sénégal def na ko euh, ñëpp xam nañu euh, tey lu mu capable ak lu mu mën a def ci ci réew mi ak ci ngir suuxal démocratie réew mi ngir mën a jëmmal turu Sénégal ci àdduna bi yëpp yëpp yëpp yëpp def na ko parce que jël na réew mi ci jàmm. Abdoulaye moo fi waxoon ne man du ma dox ci ay cadavre pour yegg ci ci nguur donc dinaa ko xeex dinaa ko dox ba yàlla teg ko samay loxo ba lépp lu ma leen mënoon wax it yàlla ma ñaan yàlla am ay pexe ma def ko jël na réew mi ci jàmm doxal na liggéey na yokk na démocratie Sénégal jóge na fi ci jàmm donc loolu je pense ndam la xam ne la tey ah jafe na ci président nga gis ko defe naa ne tey Abdoulaye Wade moo inspiré tey sax Afrique ñu bari ñi nga xam ne nii tey gis nga leen tey ni ñuy mën a euh, jëlee nguur ak ni ñu koy mën a mën joxe. Hmm. Sénégal jógee dund ci ay fan yu ñu wees ay euh, yëngu-yëngu yu doy waaraate ñi ci fës lool bokk na ci ndaw ñi alternance 2000 ban taxawaay ban rôle la ci ndaw ñi amoon. waaw mën naa wax ne ndaw ñi moom. révolution boo dégg ci àdduna bi mu réussir ci démocratie ndaw ñi ñoo ko porté ñoo ko incarné te ku ko mënta réussir ci ndaw ñi nga sukkandiku pour def ko donc ndaw ñi ñooy ñooy trans ñooy changer adduna bi ñun loolu la ñu jàngal waaye ne nag ndaw ñooñu tey saa yuñ ci dugg rek di jóg di engagé wu ci xeex rek am na lu leen ci dugal euh, seen nekkin la wala seen bëgg changer seen situation wala problème mu ñàkk liggéey wala problème injustice wala ñu dem ba confisquer seen i droit ak seen i liberté donc nag li ci réew mi fan yi gis nga ko Euh, Ablaye Wade bi ñu jël réew mi ndaw yi ñu la àndaloon mais je pense que tey bariwul ci ndaw ñi ñu mën a taxaw mën ko ŋaññi wala mën a wax tey wax boo xam ne nii tey di nga mën a jàpp ne Ablaye Wade la nag la mu la mu doon def pour ndaw ñi wute na donc tey nag xeex bi ñu gis Sénégal ndaw ñi ñoo ko porté léegi nag lan moo ko waral loolu la ñu war a posé comme question ci am na ñu ñu ñu jotagum dégg ñoom dañu jàpp ne même waa nguur gi dañu jàpp ne tey problème mu ñàkk xëyu ndaw ñi bokk na ci dañu wax ne tey misère sociale bi am ci réew mi ak pauvreté bi bokk na ci dañu wax ne tey ñàkk formation ndaw ñi bokk na ci donc loolu buñ ko d'accordee dañuy war a mën a d'accord ne Macky Sall dafa échoué politique sociale am ak politique de jeunesse am dafa ak politique bu emploi am dafa échoué ci réew mi donc parce que bu échoué wuloon tey ndaw ñi du ñu toog tey ba mën a génn tey di def lii ñuy def li nga xam ne nii tey def nañ ko ci réew mi ñëpp naxarlu ko ñëpp ñaawlu ko dafa dafay dafay gàkkal deru Sénégal ci démocratie dafay dafa am benn impact économique bu am solo ba nga xam ne ni tey réew mu ñuy wut xëy ñu yàq liggéey di yàq ay centaines des milliers d' emplois réew mu xale yi amuñ lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñu xëy di toj ay barab ay ay dafa doy waar daal hmm. donc lu yëpp day firndeel ne Macky Sall ak politique yi mu fi teg yëpp dafa amul benn viabilité politique yi dafa échec bokk na ci li tax xale yi gën a génn pour manifester pour def violence yi yëpp donc daal am na ñeneen ñu ko foogee leneen parce que yàgg nañu wax ne Macky Sall bi mu jëlee réew mi dafa di xale yi cinq cent mille emplois cinq cent mille emplois yooyu mu diggoon xale yi tey ñaatala la ci def mais dafa ñëw déstabiliser système bi euh, bëgg a jël xale yi euh, au lieu mu renforcer université yi euh, renforcer école yi mu ñëw di def populisme jël xale yi yóbbu leen ci école yi mu nekk tey ay ñoo xam ne ni génn nañ am diplôme amuñu xëy parce que moom gouvernement am préparé wuñu marché du travail bi de sorte que dina mën a absorber xale yi nga xam ne ni formé nañ leen ba pare loolu day nekk bombe sociale moo tax ma daan wax ci samay waxtaan yu njëkk ma ne Macky Sall système moom yi muy teg ci réew mi dafay nekk bombe yu nga xam ne ni bés bu explosé ci réew mi dina fi indi yàq-yàq yu doy waar donc nag tey dañuy constater rek échec politique gu Macky Sall yi ci wàllum xëy ci wàllum ndaw mi ah ci wàllum euh, euh, vraiment développement réew mi moo ñu indi lii yëpp. Mm. mais xale yi ñoom ñun jàpp nañ ne xale yi ñooy avenir réew mi. Mm. xale yi ñooy créer bépp. révolution boo wara mun am ci dëkk bi. 19 mars ngeen jëlee woon fii ñi fi nekkoon 2000 25 euh, mars tamit 2012 mu am ñu leen fi jëlee boobaak ak léegi PDS mu am lu mu dund ay kàngam ci parti bi tamit daal di beddeeku ku ci mel ni Omar Sarr Madické Niang Modou Fada ak ñeneen ak ñeneen tey lan moo dese parti démocratique sénégalais. waaw man duma bëgg lim ñi dem parce que ñi dem lu PS lu PS sénégalais bi ñu nekk tey parti gënu ko taxaw réew mi parti ëpp ko yaakaar ci réew mi tey réew mi ni ñu yaakaaree PDS. comme mu war a mun a nekk alternative euh, loolu li ko waral mooy dañu am bilan bilan boobu nag du ay nit ñoo ko def parce que li fi amoon yëpp Abdoulaye moo ko xalaat moo ko tënk moo ko mettre en application donc tey ay nit dem bàyyi ñu terewul parti bi di dund tey la parti bi dund parce que boo ne am nañu dem da ngay wax ne am na ñu ñu ñëw te ñu ñu ëpp téeméeri yoon parce que ñëwuñu bu ñu yor nguur dañu ñëw ci jamono yu gën métti te lii ñu weesu ba ñu ñàkkee nguur ak léegi daa doonte ne métti na mais expérience bu riche la parce que parti bu ñàkk nguur toogaat ci opposition mën a toogaat bay mën a nekkaat aussi la convoitise des sénégalais da ngay sant yàlla donc ñun suñu parti gëm naa ni ñu ngi ci liggéey liggéey bu nga xam ne ni bu matee sénégalais ñu xam lu ñuy liggéey parce que li ñuy def di ko def ci weer yi yëpp ci anam yi yëpp parti defu ko amul lu am Sénégal loo xam ne déggoo ci loxo PDS wala déggoo ci kaddu PDS wala gisuloo ci PDS ñu ngi koy def nag ci anam yi ñu ko war a defee selon notre agenda jàpp ne defaluñ ko kenn suñ bopp lañ ko defal parce que politique bi ñu nekk di ci dox lu ñu gëm la ci lu ñu tàggat la te ci lu ñu nàmpal la ñu jàpp ne nag ci la ñu war a mën a jaar pour suqat réew mi pour quand même génne réew mi ci jafe yi mu nekk. gannaaw alternance bi ngeen réussir mu am ah, ki fii ñëw léegi nga xam ne moo yor mi jamono ji nga moom it muy libéral ndax ah, ci pedes la bawoo 2012 ba léegi mu nekk fii waaye mu mel ni dañoo gis seen lëkkaloo diggante rawatina ñaar njiit yi ah, lëkkaloo bi doxul noonu mu mel ni relation yi doxul ndax mën nañu yaakaar tamit booloo maanaam li ñuy wax retrouvaille eh, grande famille libérale. waaw loolu bon nit ñi mën nañ ko xalaat mais man li ma la ci mën a wax rek ñun dañoo am njiit goo xam ne ni dañ ko doyloo muy Abdoulaye Wade parce que nit koo xam ne la dafay jël temps lu ëpp ci temps ci xalaat ci parti bi fu mu jëm ak fu mu jógee ak euh, principe yi nga xam ne ni moo ko lal ñun ñu jógee ci réew mi Macky Sall wutuñu Abdoulaye dafa ne ko euh, réew maa ngi nii sama kër nga jógee sama waa kër nag tey ñu ngi ci sa disponibilité bu boo leen soxlaa pour ñu jàppale ci lu nga xam ne nii lu amal réew mi njëriñ la loolu la ñu mën a wax en tant que parti yor réew mi bi ñu fa jógee ñu jox ko leen ngay gis nga la ci topp donc bi ñu fa jógee it ñun dañu gëm ne politique ay idée la ay xalaat la xalaat yi gën a sell xalaat yu gën a dense mooy politique mais def ko ci ay principe ak ay valeur ak Sénégal ci kanam ci loolu la ñu tàggat donc nag ci loolu ñun la gëm ne politique ay référence la idéologie la ñun bokkuñ ci ñi nga xam ne dañuy jàpp ne politique da nga ciy dugg rek pour réussite sociale donc nag moo tax ñu jàpp ne euh, ak lu mën ci am ñun suñuy principe idéologique suñuy référentiel idéologique dara mënu ko wees dara mënu ko soppi dañ ciy dox ku ci dox xëyrun ku gëm ni politique nag ci yeneen anam nga koy def en dehors des idéologies en dehors des références kooku yow la engagé ñun mënuñu cee sori. Euh, gannaaw xew-xew yi ñu dund ay fan yi wees njiitu réew mi euh, ci taxawaayam bu yees nee na noppi na sax ngir waxtaanee waxtaaneaat kaaw Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall ndax yéen Karim mi ngeen jàppee di seen candidat la yaakaar ngeen ñu daal di neenal lépp lu ñu koy toppee maanaam amnistie. ñun ñaanuñu amnistie musuñoo ñaan amnistie. ñun dañoo jàpp Karim. Karim Wade dañ ko dafa nekk Sénégalais liggéeyal réew mi. pare ko. topp ko ci base délit bu ñu tuddee enrichissement illicite ñëpp xam li mu doon ci réew mu mel ni Sénégal ak ay réalité sociale am hmm. utiliser CREI bi nga xam ne tribunal bu kenn d'accordul la daan ko ci doole takk ko dipot ko génne ko Sénégal exilé ko taxul ñu bàyyi suñuy loxo ku ñu commencé xeex dem ci ay tribunal yu wër àdduna bi yépp ba yegg Nations Unies jaar cour de de la CEDEAO tribunal yi ne France yi ne Suisse yi ne Allemagne fu ne ñu daan Sénégal donc ñun ñu dara li ñu ñaan rek mooy que Karim Wade nguuru Sénégal delloo ko ay droit wam parce que Macky sal nag moo jiite réew mi te moom ci constitution Sénégal bi dafa am obligation assuré bépp sénégalais doomu sénégalais bu ne fii wala ci biti ñu respecter ay droit ay axam ak ay yelleefam mhm. donc ñun ñaanuñu dara li ñuy ñaan rek mooy Sénégal toll fu nga xam ne nii mën na dëppoo ak turam dëppoo ak turam nag mooy dañuy woowee démocratie démocratie mooy état de droit mooy respecter ak ak yelleefu nit ñi mën a garantir droit ak liberté nit ñi. waaw ñu gis ni tamit euh, sëñ bi ba euh, Ousmane Sonko ay fan a ngi na ay doxu tànku jàmm wala bokk euh, lu muy seeti ñenn ci ay leaders yu opposition daanaka ci waxtaan yëpp ñoom ñëpp kàddu gi benn la booloo opposition bi la nuy sàkku ndax loolu lu mën a nekk la fii ci Sénégal ngir janoor njiitu réew mi Macky Sall waaye tamit ndax PDS ànd na ci. ñun déjà mosuñu am problème ak ay problème mu opposition ànd ak opposant defe naa ni li Sénégal bañ Abdoulaye Wade PDS perdre pouvoir bi ba léegi coalition wala alliance politique yi am Sénégal yëpp loxo PDS mi ngi ci bu ko wala mu organiser ko jàpp ci si dooleem ci ay xalaatam ak ci pexeem donc ñun mosuñu am problème boobu nekk ci alliance waaye nag suñu nekk ci alliance am na aussi njàngat bu ñu jàngal parce que ñun dañu jàpp ne ànd ak alliance def alliance politique wala ci coalition politique dañ koy war a mën a teg ci lu nga xam ne nii day nekk lu ñu war a mën a tuddee plateforme politique bokk ay ponk yu nga xam ne nii moom lañ ànd di xeex gëm ko nag assumer ko porter ko wante bu dee ànd la pour ànd nii rek àndoon too loolu defe naa ne PDS wees na loolu beneen affaire bi mooy réew mi aussi nit ñi dañu war a xam ci lu ñu war a ànd ak lu ñu warul ànd tey question de démocratique question d' intérêt national war nañ ci mun a ànd mais nag day laaj waxtaan boo xam ne nii ñi koy seq dañuy nawla wante teg ko ci ay base yu sincère ay base yu transparente pour mun a ànd mais ànd boo xam ne nii da ngay ànd pour utiliser nit ki wala pour wéeru ci moom wala pour li ngay défendre gëmuloo ko bu subaa changé loolu it dafay tax nit ñi seen xel tey ci ànd donc ñun amuñu problème ànd ak kenn mais dañu bëgg ànd bi mu nekk ànd bu sel ànd bu ñu teg ci ay ay ay sart yu leer soo xoolee même bi mujj élection présidentielle ñu ne ko opposition bi ñëpp àndoon bind ay sart xaatim ko est-ce que respecté nañ ko donc nag loolu dafa nekk ay problèmes yi xam ne nii tey dañ ko war a mën a teg ci table bi waxtaanee ko pour que ëllëg ànd bi mën a leer mën a yomb mën a nekk njëriñu ñëpp. yow yaay njiital kon fédération nationale muy kuréel gi ëmb cadre libéraux yi sëñ bi Lamine Ba ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. ñu ngi leen di gërëm aussi di leen remercier ci seen invitation.